salli ala seydina muhammadin wa sallim rabbi shrah li sadri li amri waxlul xuqdatan sëriñ cheikh mouhamadou mahi ibrahim ñas ñu ngi yëkkati nuyu yi gën a sell te gën a tedd man ak délégation bi nga xamante ni ñoom laa àndal bawoo fa président de la république son excellence Macky Sall di ko teg ci sa loxo di ko teg ci sa loxo ngir nga jottalil ñu ko njabootu Baye Niass gépp maa ngi ànd ci délégation bi nga xamante ni président de la république Macky Sall yabal nañu fii tey ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne bay càmm ànd ak le ministre de l'urbanisme muy Abdoulaye Seydou Sow ànd ak tamit le ministre de la culture Aliou Sow ànd ak le ministre bi nga xamante ni moom moo yor wàllu ndaw ñi waaye tamit moo yor lii nga xamante ni mooy xëyu ndaw ñi ñu koy wax Pape Malick Ndour fekk nañ fi léegi ki doon introduire leeral na ko gouverneuru région bi mu bokk ci délégation bi préfet département Kaolack maireu Kaolack ak président conseil départemental bu Kaolack waaye teew na fi tamit ñu mën koo tudd ràññee ko le directeur général de la Sénélec muy Pape Mademba Bitèye sëriñ bi président de la république son excellence Macky Sall moo ñu fi yabal tey ngir ñu ndokkeel la ci bis bi waaye ndokkeel umma islamiya bi yëpp bu ñu jógee di ñëw daf ñu wax ni ñu bu ngeen demee na ngeen ma nuyul sëriñ bi gën gi nuyoo waaye tamit na ngeen ma ziyaaral sëriñ bi gën gi ziyaar xam na dayoo bi nga xamante ni gàmmu am na ko ci àdduna bi yëpp waaye xam na tamit dayo bi nga xamante ni am na ko fii ci Kaolack ndax bis bii nga xamante ni ci lañu jëm muy bis bi leeru ngën gi mbindeef feeñoon ci jamono Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy bis bi nga xamante ni lëndëm toxu na leer dugg mooy bis bi nga xamante ni yàlla wàcce na yërmande ci àdduna ngir képp koo xamante ni bëgg nga wommatu ngir lépp loo xamante ni lor la àdduna ak alaxira mu dëddu la loolu mooy bisu gàmmu fii nag ci Medina Baye mu am fi cosaan lu rëy ñu xam liggéey bi nga xamante ni cheikh islaam islam cheikh Ibrahim yàgg na ko ci taxaw daan woote ci ëttam bu sell bii nit ñi di bawoo fu ne di ko fekk si muy suuxat seen xol yi ci leeru Seydina Muhammad alay salaatu salaam di nafaraat jikko yi di fësal li nga xamante ni moo doon taxawaayam ba buñ fi jóge ku ne mën a jariñu loolu moo doon taxawaayu Baye di taxawaay bi nga xamante ni ñi ko wuutu fii tamit ci Medina bàyyi yàgg nañ ko taxawoo ba mu yegg si ci yow te ku ne xam na ni cheikh al islam cheikh Ibrahim fierté la ci Sénégal fierté la ci Afrique waaye dem na fu ne ngir weesaare fa diine ngir yóbbu fa jikko yu rafet ngir jàngale fa mbaax loolu nag gis nañ ba ca réew yu sori yi muy Chine muy Nigéria muy Soudan muy Tchad fu mu mënti doon ci àdduna gis nañ taxaw bi nga xamante ni moom la fa bàyyi taxaw moo tax daaw bi ñu gisee nga sol sa dal jaar fa bàyyi jaaroon suñu xel dafa dal ndaxte daaw lu mel noonu nga doxi woon ba Darfour fekk ñoo xamante ni réeroo nañ woon ay at yu yàgg nga dem wax ak ñoom boole leen ba seen xel dellu si ba jàmm mën a dellu si foofu loolu nag day wane ni sëriñ bi mu jéewoo puso bi mu réer looloo tax président de la république son excellence Macky Sall ni ñu bu ngeen ñëwee na ngeen ma ci ndokkeel bi ngeen di ndokkeel bi ngeen may ndokkeelal sëriñ bi na ngeen ko wax ni maa ngi rafetlu bu baax jàngale yi nga xamante ni mi ngi koy wéyal bi jàngale ca fa bàyyi tegoon tànkam ca fa bàyyi bàyyi woon ndonol yi mu ngi koy wéy di wéyale loolu jëm na ci defar jikko yi ci mag ñi waaye tamit dem na ci defar jikko yi ci ndaw ñi te képp koo xamante ni yaa ngi doxal jàmm sa réew ba ca réew yi sore yi sa biir réew du mat a wax te loolu it gis nañ taxawaay bu rafet bi nga xamante ni taxaw nga ko ci président de la république nag dafa am solo bu rëy rëy boo xamante ni jox na ko gàmmu moo tax bu gàmmu jubee daf ñuy sant ni ñu da ngeen taxaw ànd ko këri diine yëpp ba taxoon na bi ñu jubee gàmmu gi Cheikh Mahi Cissé ñëwoon na ànd ak comité d'organisation bi ñu bokk liggéey bi ba bisu tey bii solo bi mu jox gàmmu day dugg ci solo bi mu jox diine moo tax bi mu ñëwee mu taxawal benn programme spécial bu mu dëjee cité religieuse yi fépp fu këru diine nekk ci senegal président dem na fa dox fa indi fa loo xamante ni dafay jàppale communauté boobu ci seen gën a dëgëral jaamu yàlla. looloo waral fii ci Kaolack tamit boo jëlee wàllu assainissement def na ci lu mat 15 milliards diggante assainissement bi nga xamante ni dafa lal eaux pluviales yi muy ndoxu taw yi waaye tamit eaux usées yi. ci wàllu voirie yi def na fi lu mat 11 milliards bu demee ci wàllu électricité. Pape Mademba bi tey di directeur général senelek Sénélec mi ngi nii toog ku ne xam na éclairage public ni nga xamante ni indi nañ ci coppite yu rëy fii ci biir Kaolack te mënoon naa koy lim benn par benn ci domaine boo jël rek soo demee ci cité religieuse yi am na loo xamante ni président jëmal na ko fa. waaye loolu day wane solo si nga xamante ni jox na ko diine solo si nga xamante ni nim koy fàttalee saa su ne bëgg na ko taxaw ci seen wet ngir lépp loo xamante ni soxal na diine lépp loo xam ni soxal na askan wi. mu taxaw ci ba li nga xamante ni mooy ci seen yéene mu am ci loo xamante ni euh, kawe na njortam moo tax ci bisu gàmmu bi nga xamante ni ñu ngi koy jub ma rafetlu bu baax li sëñ Cheikh Mahi Cissé fàttali ñu keroog mu nekk waxu dëgg li Baye Niass waxoon Cheikh islaam Islam Cheikh Ibrahim ni mësta ñaan suñu borom ci guddi gàmmu loo xamante ni mayu ko ko ñu ngi ñaan ci barke Baye ak ci barke gàmmu gi nga ñaan Sénégal jàmm ji yokk xam nañ ni naka jekk ci loolu nga nekk ñaan Sénégal sutura si yokk ñaan senegal teranga gi yokk ñaan Sénégal jikko yi gën a defaru ñaan nawet bi nga xamante ni ñu ngi ci cat li am nañ ci njort lu rafet ndax taw ni mu baree ren waaye bis bu ñu góobee ba war a jël li nga xamante ni moom la ñu bay yóbbu ko ci sàq yi lépp yéwén ba ñu muurloo ko salaam wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu